sallallahu alayhi wa dégg nga est-ce que bëgg ngeen a xam kan mooy kooku. moom rek lañu bëgg a xam. damay laaj de ndax bëgg ngeen a xam kan mooy kooku. rek lañu bëgg a xam. xoola saal bi li ngay wax yépp ñiy seetaan télé yépp ñëpp a ngi di toog ni celaw ku ne yaa ngi jàng mën naa am donte suñu xam-xam bariwul ku ne yaa ngi am loo jël waaye dafay mel ni dafay am benn pikiiru vitamine C boo leen di dóor saa boo tuddee sayyiduna Muhammad bu yaram yi deewee moo koy dundal bu cër yi taayeelee moo ñuy sawarloo sëñ Bàmba bi mu nee bërët daf ko joxañ ni ko yow rek la du keneen Cheikh na Cheikh Saad bërët ni ko yow rek la du keneen dem na moom Cheikh na Cheikh Saad bu doomi Mouhamad faadal Diak Maamin ba yàgg mu naan ak neexoon ma doon suuf siy taq si suufu dàllam dàllam bii muy doxe man Cheikh na Cheikh Saad bu ñeenaa dàll bi ñu ne ko lu tax mu ne suuf si taq ci dàll bi sax man ñeenaa ko waxuma dàll bi ñee waxuma waxuma waxuma dàll bi de dàll bi sama maam di sol waxuma ko de mais bu doxee dàll bi dëgg suuf pépp suuf yooyu taq ci dàllu sama maam ñeenaa ko man seex na seex Saad bu lu ko waral mu ni bëgg sama maam Sayyiduna Muhammad borom innal fuada suxifa bi hubbi adil mustafa salla alayhi man wafa lahu bi kulli ma waad cheikh na nee na bittu wa ayni lam tanam min hubbi sayyidil umam ya habada zaaka saqam min hubbi sayyidi sanad cheikh na Seex Saadu doomi Muhammad Faadal jamaami cheikh al Khalifa ne insaanu ayni yahriqu wa taaratan turafrifu misla tasaaqutil barat qad faatani wa lahafi wa ibrati Muhammadun Rasuulullaahi xayrul maat sallallahu alayhi wa sallam man Saadu dama toog ba mu yàgg sama xol bi jaxasoo. Eh, eh, eh. ceex na ne sama xol jaxasoo na moo ceex na lu ko jaxase mu ni leen rek a ko jaxase bi hubbi hadil Mustafa xoolal gis nga boo gisee koo bëgg di dox ci mbedd ba yàgg nga dajeeg moom day mel ni dafa am lu jóge ci yow rek day mel da ngay tiit léeg-léeg moom doo ko xam sax da ngay gis nit rek am loo yëg ci moom rek mu ne tëll rek am loo yëg Cheikh na Cheikh Saad bu ne sama xol lool la def ñu ne ko lan moo ko waral mu ni bëgg ki yàlla tànn muy sama maam sayyidina Muhammad sallallahu sadd liman ganama busre liman na Cheikh Saad bu ne sallallahu alayhi man wafaadahu bi kulli ma waad maa di ñaan ak jàmmi yàlla yàlla mi nga xam ne lu mu ko diggoon matal na sotti sama maam Seydina Muhammad bidwa aynu lam tunan ey ey Chérif samaam Cheikh na Cheikh Saadu doomi Muhammad Fadel Dia maami Chérif Abdoul Aziz Aydara bay Cheikh Taalib maa ngi tëdd waaye mënu maa nelaw min xubbi sayyidil ummam Cheikh na ne pourtant sangu naa de waaye nelawuma Cheikh na ne ma defee ni tàngaay bi la ma dindi muuraay gi waaye taxul ma nelaw Cheikh na ne pourtant fay naa lampe bi ci lëndëm gi waaye nelaw te néeg baa ngi leer cheikh na ne pourtant gëmm naa samay bët ba mu dëgër waaye mënumaa nelaw ndax bët yaa ngi leer maa ngi gis ak leer moo loolu lan la mu ni bittu fanaan naa waaye nii samay bët lam tanam na mënuñoo nelaw moo lu ko waral mu ne min xubbi sayid min xubbi sayidil umam cheikh na ne li ko waral mooy bëgg ki nga xam ne mooy sangu xeet yaa habazaka saqam cheikh na Cheikh Saad bu nee ma sa garab ni feer ñaanal ma yàlla feebar bi ma dal di bëgg sama maam yàlla na yàlla na yàlla na sax ci man man seex na Cheikh Saad Bou insaan waay nu yuxrixoo seex na seex saat bu ne sama bët yaa ngi jooy ñu ngi lakk ba tàng jër bi dami wa yuxrixu seex na seex saat bu ne sama rangoon yaa ngi tàng ñu ngi lakk sama lex yi ngir lan bëgg sama maam sayyiduna Muhammadu wa taaratan turux Cheikh na Cheikh Saad bu ne léeg-léeg rangoñ yaa ngi daanu ñu ngi barastiku bu ma ngeen ni di rek waaye ñu ngi wàccaat mislal tasaaxutil barat Cheikh na Cheikh Saad bu ne yow mi miin wàccuk nees ni nees di wàcce sama rangoñ ñi noonu lay wàcce ngir bëgg sama maam rasulillahi raxa xasmi wa dammi Cheikh na Cheikh Saad bu ne raxaa yéeg na asmi sama yax wa dammi sama deret yéeg na man Cheikh na Cheikh Saad bu xubbu nabiyul hashimi Cheikh na ne li Haashim la bokk moom rasulillahi abki bi taxassumi maa ngi koy jooy bi xumi jooy yi dama koy ànd ak randam ti ku man Cheikh na Cheikh Saad bu mislal buka umul walad maa ngi mel ni nday ju am doom doom ja dee na muy jooye doom ja Cheikh na Cheikh Saad bu ne noonu laay jooye sama maam man Cheikh na Cheikh Saadu xat faatani ya xasrati man cheikh na cheikh saad bu moo cheikh na lan la mu ni perte naa yaa xasrati waay waay rëcc na ma waay yaa xasrati woo naa sama perte man cheikh na cheikh saad bu ibrati cheikh na cheikh saad bu ne sama xol baa ngi lakk wa ibrati woo naa sama rangoo ñi man cheikh na cheikh saad bu nabiyun daaril hijrati mooy yonent ba nga xamee ni mooy yonentu këru gàddaay ga muy medinatul munawwara moom sallallahu alayhi wa sallam muhammadun xayrul maad bu ñu la laajee turam cheikh na cheikh saad bu ne muhammad la tudd laata moo judd lañu ka doon woowe ahmadu wa iz qaala isa bnu maryama ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bay بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد لا تموجد أحمد لا بنكون بيبا موم جروم بين وير محمد لا بموجدو محمد لا بمو أمي 25 ans الأمين لا بمو أمي 40 ans نكون محمد رسول الله liman kanama cheikh na cheikh saat mu ne sama maam daal ku mu àndal jamono moo la féete kaw moom rasulullah liman xat jama cheikh na cheikh saat mu ne mbégte ñeel nañu dajeeg sama maam sayyiduna muhammadu maj ma wata siwa maa ngi seeti keneen cheikh mat bamba xayrul xadim baayu basak baara maa mi ne lox cheikh mbàkke yu baayu sëriñ fàllu mbàkke baayu sëriñ saaliw borom gotak mbuur baayu cheikh abdoulahat mbàkke maa ngi joobe sayyiduna muhammad ci mbindum xaadimu rasul bul makaani